Euh, maa ngi tudd ab Abdou Soxna Diouk dëkk fii ci Ngent waaw suñu xalaat nag mooy bu ñu sañoon ah ñu ñëw jëm ñu koo yeggaleel parce que ça fait presque cinq mois yoo nga xam ni a ah, dëgg-dëgg yàlla gisuñu fi kenn ku yëngu dara ba lépp lu ñu amoon ci ne bànneex ci ndox mu wàcc tey jii amaat nañ ko ci lu gën a naqari ndax mi ndox mi yéegaat na bi travaux yi arrêté ak léegi. waaw ndax mbir yi bari na lool si buru si bari na ndax man ci poste sant ba laay nekk waaye bon fois yi ma fi mas a gis ñu ñëw def ci seen kàttan ak seen doole ma sàmba Diop ak ku ñuy wax Xaadim Diop nga xam ni ñoom ci ak Thierno Alassane Sall lañ fi nekk la ñu nekk. dëkk ci koñ bi ñoo fi gisoon naqar woo nga xam ne poste de sant bi sax vraiment délabré woon na d'une façon que nit ñi sax mun ñemetu ñu ñëw fii. ñu yëkkati 600000 francs jox ñu ko pour ñu ni vraiment kon lii dinañu dimbali ci ngent waaye bi ñu ko commencé ñu applaudir dikk nañu ba à un certain moment ça presque 4 mois yoo nga xam ne travaux yi dañu dafa taxaw lépp lu ñu amoon ci lu wàccoon ci ndox mi yéegaat na ba nga xam ne kër yi ñu ngi amaat coono nawet bii di ñëw nag ah ñuy am yaakaar ci ñii toog nii ñu dimbali ñu bu baax ndax biram sulay mi ngi dëkk fii à 500 mètres. te maire am zone nord bi muy dem toujours mu romb loolu ñu di ko ñaan moom biram sulay mu taxaw ndax keroog ba ñu leen fale maa njëkk ni ko biram bul ñu fàtte ci Thiès te joxoon ko loxo bul ñu fàtte suñu côté ngent bi boobu ba nëga ni nag ah ñuy jooy waaye comme yàlla def na tey jii ngeen ñëw fi pour mën ñoo waneel suñuy jooy ah ñu leen sant yéen di leen gërëm ñun dey gisuñu tableau gisuñu dara xëy nañu ñëw daal pour comme quoi que kanaal bi moo leen yëkkati vraiment toujours man maa ngi ci seen biir sax ñoom ñuy liggéey canal bi mais nee nañu daal vraiment li tag du ci ñoom ndax suba suñu xëyee ñi ngi ñëw toog liggéey amul dara amul waaye ñi ngi ñëw toog xamuñu nag ndax ci entreprise bi la wala état bi leen ko joxoon moo am problème ba tax mu yam fii ñun nag ñi ngi ñaan ñii fi toog daal vraiment ñu ñëw àggaleel ñu lii parce que bu fi nawet bi fekkee te nawet ñi ngi am yaakaar fii ak un mois et deux mois te bu nawet bi ñëwee fekk si lii dina tiis lool bi ndax ndox mi dina tasaaroo ci biir koñ bi dina doy waar lool amuñu benn mesure bu ñu jël ndax quartier bi moo doon quartier à problème ndax amuñu conseil de quartier ndax ki fi nekk bëggul conseil de quartier te loolu moo ñuy tax kenn ku ci nekk am foo bay sa bopp ndax quartier bi mën a évoluer loolu daal lañuy ñaan ci autorités yi fi nekk ñu soññ suñu ki fi nekk pour ñu taxawal conseil de quartier ngir ñu am nu ñu mën di jooyee loolu mooy suñu problème mhm.